waay waay Cheikh Alassane euh, président de la coalition Jàmmi réew mi waaw waaw jërëjëf tey jii maa ngi Médina ci opération dox mbokk bi nga xamante ne moom la coalition Jàmmi réew mi lal lal fépp ci réew mi ma ñëw tey Médina seet si suma mag sama xarit Euh, ñu koy wax soxna Mbacco Diop mu mu génne ay xaritam génne ay soppeem génne ay am di jàmmam génne ay dëkkandoom génne ay mbokki boppam ñu àndandoo dugg ci biir Médina seet mbokk yi waxtaan ak ñoom saa fonte ak ñoom wax leen li ma bëgg lal ci réew mi te lépp nag ñu lal ko ci jàmm jàmm jooju mag ñu baax ñi fi jaaroon nee nañu moo gën fii ñu ne moo gën fa ñu jëm jàmm jooju nag la ñu bëgg mu law fépp ci réew mi li ma bëgg nag mooy réew mi fii ba vingt 2024 benn xale du fi dee loolu mooy benn d'abord mooy mooy sama démarche mais ñaareel ba kenn alalam warul yàqu ci réew mi ndaxte nit ñi sonn nañu fexe ba lijjanti ba samp li ñuy dundalee seen i njaboot kenn warul taxaw am sañ-sañ yàq ko ci benn fañ donc démarche boobu la ñu am mais démarche dafa am leneen lu ko ëmb nag mooy indi yaakaar bu bees bu mu bëgg samp ci réew mi en 2024 muy d' abord la banque Allo Soxna May 580 milliards de francs CFA lañ ci injecté avec la suppression de la mairie de Dakar beneen bi mooy rabal la mbaal yattal la gaal ci réew mi ma jagleel ko ndaw ñi avec la guichet unique ci ANPEJ mooy agence pour la euh, promotion de l' emploi des jeunes guichet unique laa fay def tuddee ko Dóor waa junior xam naa naka lay def ba link ko ak kër coach bi ma bëgg tabax ci prison Rebeuss parce que dama fay jëlee pour samp lu bees peq dama bëgg wax sénégalais yi ñu am yaakaar ne à partir de deux mille vingt quatre réew mi incha allah day génn ci ndóol ndax système bi ma nar samp ci réew mi mi ngi dem ci administration classique d' bi fi amoon nga xam ne tubaab bi moo ñu ko bayeel dañuy seppi loolu samp administration de développement. ngir yóbbu ci réew mi naataange bu mat sëkk incha allahu taala lii mooy sama tànk. waaw man de li may ci wax lu simple la Seydi Hadji Malick dafa wax ne na ngeen fexe ba jàmm dox seeni diggante waaye na fexe aussi mu jiitu ci yéen Serigne Touba. bi mu dellusee ci exil bi mbooloo mi takk lool daa wax ne jéggal naa képp ku nekkoon sama noonu mais ñaanal naa leen it man mii di waxanteeg yéen def naa treize mois de prison ñu jàpp ma yóbbu ma chambre criminelle may déglu rek di muñ bi ñu saagaa yonent bi salaay salaam po poosé amu ci ba léegi nii ma lay wax mais bi ma génnee dama wax ne ñi ma jàpp mooy ñi fi ne nii ma ne jéggal naa leen mhm. ba pare ma samp nag sama ndënd bii ne ginnaaw bi ma jéggalee samp naa ndënd bi wan yàlla maa ngi jéem a améliorer suma relation ak yow li ma ci jublu mooy man ak sénégalais yi nga dimbali ñu améliorer suñu relation ba ëllëg en 2024 incha allah ma mun a am ndam ci réew mi ñu tàmbalee liggéey dans un développement bu laal képp kuy sénégalais ci réew mi nga bàyyi ko fii ba Fongolemi dugg Boseyaabe dem Salde dem Candar dem Waxunguna dem fii ci ci ci ci ci ci Ziguinchor fépp daal bëgg nañ ko fa lal incha allahu taala ba fayaa ko fépp rek ba ci diaspora bi Sénégalais yëpp daal bëgg na ñu gis seen bopp ci loolu li may def nag te laajuloo ma ko sax daanaka mooy lancer appel nag léegi képp kuy Sénégalais nekk ci réew mi dëgg la gënuma siiw ci candidat yi waaye kenn ci ñoom ëpp ma yéene ci réew mi beneen ba ca topp nag mooy ma leen di lancer défi tàmbalee ko ci président Macky sàll ba ñeneen candidat dama leen di woo ñu dem euh, débat public ma wax man li ma yéen Sénégal ñoom ñu wax ko ñu xool sénégalais yi kan moo gën a kii te kenn ci ñoom du du du d'accord jàkkaarloog man nag ci lii ma mën a samp voilà loolu mooy wax ji.